Ndiène Sarah nekk aussi euh, responsable euh, départemental des jeunes et deuxième secrétaire élu au niveau du conseil départemental de de Thiès. Ndiène Sarah dafa nekk cas boo xam ne ni cas bu particulier la parce que élection yi c'était quasiment seul contre tous maanaam APR la woon ak yeneen parti yi. parce que maire bi nga xam ne mooy sëñ Fallou Fall nekk fa maire au niveau de Ndiène Sarax euh, la fa waxoon ne mu ngi APR ba tax lépp bépp avantage boo xam ne ni la doon jóge ci parti bi jëm ci militant yi moom lañ ko doon jox mais rappelé ne 2014 ba 2016 lépp loo xam ne lay jóge ci parti bi jëm ci militant yi euh, effectivement ci moom la doon jaar ñun nag attiré woon nañ attention parti bi ne leen kii ñëwul APR ñëwul APR mais nag parti bi booba <laughs> nangu ñoo déglu dañu yaakaar na affaire u siis la wala dañuy kii te ñun ñu sommes des militants disciplinés lépp lu parti bi wax rek dañ ciy d'accord donc bépp avantage boo xam ne nii muy aide tabaski yi aide korité yi aide tamxarit yi aide gàmmo yi lépp loo xam ne ni parti bi la koy jàppale militant yi rek moom lañ koy jox ñun gisuñu dara mais n'empêche que boobu ñu ngi doon jël suñuy moyens bopp di jima entretenir suñuy militant di liggéey di massifier parti bi ah bi ñu demee ba waaj référendum bi nag la ma leen waxoon moo am parce que laa dem ànd ak réew mi ak waa Modou Diop Decroix comme ñoom ñoo àndoon contre APR. kon moo tax kon Ndiéyène Sirakh nekk un cas spécial c'était trois partis contre APR ñoo fa newoon moo tax résultat effectivement bi ñu ñëwee nous avons perdu les euh, les les bi ñu fi tiré daal moo di il faut que ñu xoolaat management parti bi dans le parce que ñi nga xam ne ñoo nekk ci localité yi ñoo gën a xam li xew ci parti bi ci ci commune yi parce que moom ñun boo dee xool suñu comité électoral ñi ngi ko monté jour bi nga xam ne ci la campagne bi démarré le 12. parce que booba respecté discipline parti bi ñu wax nañu léegi maire bu ñëwee ñooy coordonné ñu leen amul problème ñu toog di ko xaar di ko xaar di ko xaar ba le 12 bi euh, bi campagne bi démarré ci la jóge wax ne moom noo lay woote lay dem ànd jéeg réew mi woote non te booba bi mu naan toog leen xaar ma fekk booba moom def na ay CD distribué ko ci rajo locale yi pour di ŋaññ projet de réforme constitutionnelle bi ñu xool campagne bi yëpp mu def ci nag vraiment loo xam ne ñun koy ñaawlu parce que ñun jàpp nañ ne politique jarul leen lii parce que moom leer na ne ko ne ci 15 points yi amul fenn fu ñuy waxee homosexualité mais dem loolu moo doon campagne dem na ba ne képp ku wooteel Macky Sall sawar nga jëm xam nga loolu c'est grave ma jàpp na ne ñun ñëpp ay jullit nañ président Macky Sall jullit la ñun ñëpp ay doomu aadama ñu politique jarul yenn sos yi te leer na ko moom mi koy wax noonu loolu amul. parce que boo demee ba naan kóotal diw kóotal président Macky Sall sawar nga jëm loolu yaakaar naa ne dafa ëpp dafa ëpp nag ci kilifa naan ku ku wooteel Macky Sall ça veut que yow yaay permettre góor ak góor du sëy jigéen ak jigéen di sëy ku am doom bu la neexee dindi ko dara ju la ju fekk ku dóor sa doom ñu tëj la di ko wax ci rajo yi daf ay seede def ko ci rajo yi di ko wax complot ak yenn imaam ñu koy xutba loolu ma jàpp ne loolu vraiment lu ñuy ñaawlu nag ci moom parce que loolu du wàllu kilifa daal parce que leer na ko ne loolu dara amu ci parce que 15 points yi def nañ ko français def nañ ko arab loolu nag lañ ciy tiire rek mooy ñun au niveau de Ndiène Sirah l'APR on est en nette progression.

progression tendance bi ñu bi ñu bi ñu commencé depuis ak léegi bu ñu ko continuer je pense que bi mën na ñëwaat suñu loxo notre objectif c' de récupérer la commune avec lui ou sans lui parce que ñun aussi ay compétiteurs nañ dañoo gëm le président Macky gëm ne liggéey bi muy def c' pour le bien des populations surtout maintenant la zone rurale ñu am nag coow lu jëm ci département bi. d' abord bi ñu rafetloo victoire bi ñu am au niveau <laughs> ñu ngi doog parti au pouvoir mi ngi doog a gagné département bi donc loolu ñu ci sant tous les responsables di ci sant aussi tous les militants di ci sant aussi monsieur le président de la république parce que il nous facilité la tâche parce que chantier yi nekkeen Thiès yëpp eggale na ko kon kooku moo ñu yombalal mbir yi mais nag am coolu ci jëm ñi naan kii la kii la am na loo xam ne ni aussi man nee naa benn camp laa bokk muy camp président de la république nekkuma ci ay tendance nekkuma ci ay ay affinités yooyu li ma gëm mooy président gëm naa ne mi ngi jàppale askan wi gëm naa ne mi ngi liggéey pour surtout la zone rurale man moom laa gëm bokku mooy aussi ci collectif des maires parce que du ma maire mais nag nañ nangu ne lii bu amee tey yàlla ak collectif des maires bi moo tax. parce que man aussi damay wax dëgg rek yàlla tax kenn soxalu ma lem lekkuma dërëm kenn bu ñu gañee departement bi yàlla ak collectif de maire moo tax parce que gis nañ li amoon 2014 su maire yi ñëw kon lii duñ ko am kon nag nañ leen nangu loolu ñeneen ñi fi jëkk a nekk jéem nañ liñ mën. yàlla def na mënuñu koo am collectif de maires ñëw na wàcc na ci département bi liggéey bañ ñu gagné département bi kon nag nañ nangu ne ñoom tey ils ont été déterminants ci victoire bi nga xam ne moo am en 2016. parce que wax sa mbaax waaye du wàññi sa mbaax dara man loolu laa gëm te ñooñu ñu koy ñu koy ñu koy bañ sax ñoom seen bopp xam nañ ne bu doon ko ne collectif bi aussi ay la yëwan mënuñoo gagné loolu. kon nag nañ xoolaat yëf yi te yéen te ñun ñëpp jàmm ku nekk lay sa mérite rek ñu jox la ko. parce que loolu mooy dëgg ki polémique ñi naan kii la kii la kii la vraiment li liy dëgg te dëgg moo di les maires ont été déterminants ci victoire finale bi nga xam ne am nañ ko ici au niveau de de de l'APR donc ñuy féliciter ñi gagné ak ñi ñu gagné ñëpp ñu leen xamal ne on a une avance de 1290 voix bari na bariwut bari na parce que on a gagné le département mais nag nañ ji xool nu ñu consolider consolider cette avance là au niveau du département tey aussi ñuy bañ aussi nga xam ne dañoo nekk ci que am duñ ko mën a combler au niveau de la zone rurale kon ñoom aussi ils ont fait vraiment des résultats yoo xam ne c'est des résultats acceptables parce que gis nañ en lii réew mi doon rawee gars yi fii au niveau de la commune tey nag aussi réduire nañu écart bi jusqu'à 6 000 5 000 6 000 voix ce qui nous a permis bu ñu andee li am ci zone rurale bi ñu mën a au moins combler ce gap kon nag ñoom aussi am nañ mérite am nañ mérite parce que bu ñu rayoon donc tey ñoom aussi ñu leen di sant di leen remercier di leen xam ne en terme de performance yi def nañ ay performance ñu continuer liggéey bi continuer booloo dekk benn donc continuer wàcc population bi ba nga xam ne au niveau de la commune nañ ko mën a gagner au niveau de la zone rurale aussi ñu ji ma consolider les acquis ji ma xool nu ñuy yaatale parti bi ba vraiment mën a am score yi nga xam ne euh, ñoom na moom nañu xaar ci ñun à 60 pour cent à 70 pour cent au niveau de la zone rurale lu war a mën a mën nekk la defee nag xool aussi vraiment ni ñuy manager parti bi au niveau vraiment du département parce que ça pose vraiment un problème le management du parti pose un véritable problème au niveau du département parce que nit ñi j'ai l'impression que ñoom li leen gën a itteel mooy seen leadership est-ce que mi ngi dox est-ce que doxul apparemment c'est pas problème l'essentiel kay moom nañ préserver seen leadership nañ ko maintenir loolu nag yaakaar naa war nañ ko mën a xoolaat xool li nga xam ne mooy intérêt parti bi ñu jiital ko jëm bañ a jiital maintenant ay ay leadership parce que fii ku nekk leader nga fa nga dëkk ki nekk leader nga fa nga dëkk donc ñu bañ a xool vraiment des intérêts personnels xool l'intérêt du parti donc may lancer waat appel vraiment à l'union des cœurs ñun ñëpp ñu ànd nekk benn liggéey pour l'intérêt du parti ñun nag njëriñ sarax ñu ngi ci. nous avons perdu les élections parce qu'il y avait une grande coalition de trois partis contre la paire donc euh, effectivement euh, soo avons perdu mais nag wax naa ko naa ko waxaat nous nous sommes des compétiteurs nous sommes des gagnants li ñu gëm. mooy le président Macky te gëm naa ne tendance bi bu ñu ci eggalee on va la commune et incha rabbi nous allons récupérer la commune parce que ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm te ci loolu la ñu nekk guddi ak bëccëg donc encore une fois vraiment di sant toute la population de Ndiéyène Sarax di sant aussi toute la population du département de Thiès pour cette brillante victoire donc bi ñu am ci référendum bi di sant aussi les sénégalaises et les sénégalais li nga xam ne am nañ ko. parce que aussi opposition bi ñoom jàppoon nañ ne affaire bi daanaka ay présidentielle la sax président Idriss Seck mi nga xam ne aussi daneen président Macky Sall bu ñu ko gagné fa war a démissionné moom au niveau de Thiès <laughs> on l'a battu gagné nañ ko. kon nag en principe logique pour logique il doit quitter le conseil départemental parce que aujourd'hui il est minoritaire dans le département. comme loolu wax ne président bu ñu ko gagné laa war a démissionné moom gagné nañ ko ci département bi kon war na mën a bàyyi tekki ndo tekki tànkam xam ne nii c'est des idées yooyu je que loolu jëmul Sénégal donc référendum bi weesu na li ci def nag moo ñu jublu ci liggéey bi xool nu ñuy def ba au moins Sénégal mën a am des taux de croissance à deux chiffres et incha allahu rabbi avec le président Macky Sall nous atteindrons bientôt des taux de croissance à deux chiffres mën a am un Sénégal émergent à l'horizon ñu ngi leen sant di leen